yi dañu woote pour defal leen situation boo xam ne moo xew ci parti réew mi muy ay jafe-jafe yoo xam ne jànkonte nañ ko ci xombol depuis la création de M6 ñu tuddee woon ko mouvement de soutien à Idrissa Seck en 2006 ñu nekkoon doon ko bundu ñu jël suñu ay décision ànd ak moom en étant jeune ñu dégg ci lu nekk boobu ba léegi ñu koy soutenir di ko défendre fu nekk di ko teewal fu nekk que ça ay cérémonie religieuse màggal gàmmu ay cant lu nekk ci dëj lépp ñu ko fay teewal avec nos moyen yëkkati suñu xaalis parti bi joxuñu ñu dara ñu ko ciy def ba moment yi nga xam ne ñëw na ba ni mu génne parti démocratique sénégalais ñu ànd ak moom di ko soutenir mais li ñu constaté toujours ci parti bi depuis 2019 Idrissa Seck dugg ci mouvance présidentielle bi ànd ak le président Macky Sall dañu gis ne dañuy tuutal di ñu doyadal ci parti bi plus précisément dans le département bi nga xam ne mooy cees bi ñu dëkk te loolu kenn waralu ko kenn nekkut sabab bi lu dul monsieur le ministre Yankhoba Diattara ignoré ñu fa ignoré mën a yem doya dal ñu fa doya dal mën a yem di ñu tuutal bëgguñu suul sax fekk ñu ngi dund bu sañoon dootuñu exister politiquement ndax lan ndax ay intérêt crypto personnel am boobu ba léegi nag ñoo ngi bañ jël suñu courage à deux mains ànd ak suñu ngor ànd ak suñu fulla suñu fayda ku ne ñëw na seet si ñu nañ ñu lu nekk mais teewul ñu bouger fi ñu toog à côté de notre cher coordonnateur monsieur Ndari Ndiaye que je salue au partage wax na ko un homme digne loyal honnête et courageux ci loolu ñu ne woon tekk di déglu parce que politique laajul yàkkamti Djibo Ka doon na ko wax en politique il ne sert absolument à de se précipiter loolu moo waral tey ñu convoqué point de presse bi d'abord pour defal leen situation beneen bi mooy wax leen ne leen à partir d'aujourd'hui ñun dañuy génn parti réew mi loolu moo waraloon déclaration bi ñu leen di santaat encore une fois di leen gën xam ñun dañu jàpp ni lépp loo xam ni da koy def rek ñun dañuy jaar si yoon yi nga xam ne moom la war a jaar parce que parti bi yàlla dafa def ni dafa am ay responsable yoo xam ni ñoo fi nekk te yow su fekkee da nga nekk à l' échelle lépp loo xam ni war nga koo def da nga war a jaar à l' échelle képp koo xam ni responsable nga nga nekk si département bi ñun bind nañ la wax nan la toog nan ak yow pour naqarlu ko ne serait-ce que loolu sax mu àgg la le président yi de sa mun ko résoudre mais on s' est rendu compte que ni malgré tout ça parti bi fa mu nekkoon la nekk la preuve jafejafe jafe parti dafa yàgg lool am na ay jamono yoo xam ni je me rappelle très bien le feu Jalang Faye nga xam ne moo nekkoon le coordonnateur départemental vice coordonnateur am nekk Mor Sène ñëw nañ fii daje ak ñun ñu wax leen lépp loo xam ni moom la ñuy daj metti yeeg jafe-jafe yëpp mais tout en sachant que ni tout en ñun foogoon ni loolu su leen ko waxee au moins dina àgg fa mu war a àgg mais malheureusement dama xamul ndax Idrissa Seck jot na si mais dama xamul ndax ñoom àggale na ko fa nga ko war a àggale mais lépp loo xam ne démarche la ñu ñu ko coiffé nekk suñu responsable départementaux wax nañ ko ak ñoom toog nañ si ak ñoom. beneen bi mooy bind nañ fi texte boo xam ni sax presque tous les responsables nationaux été au courant benn texte boobu da nga ko jàllale woon si bépp plateforme boo xam ni réew mi yor na ko jox ko les responsables départementaux jàllale ko si plateforme loolu sa moo indi woon échange bi nga xam ne amoon na. entre man ak le ministre Yankhoba Diattara si mooy wax ni Ndari il faut assumé parce que bi parti bi joxe ay directive da ko fay bàyyi dem feneen loolu kon saa ko ñun lépp luy démarche ñu war koo def am fu ñu ko war a jaar jaar nañ fa xaw ma ndax àgg na si Idrissa xaw ma ndax àggu fa mais ñun lépp loo xam ne ñun en tant que parti nekk à échelle communale def nañ ko par le biais de nos de nos responsables dama jàpp ni su fekkee ni danga nekk si parti nga jiite ko am ñoo fi teg. responsabilité bu boo xam ni dal na kooku yow daf la war a dal parce que tey su fekkee ni ñun dañu ñëw jël lépp xëpp ko kenn nit te responsable bi nga xam ne moo ko fa sekk à chaque fois ñu gis ni la même chose lay def wala à chaque fois da koy jox ay ndombal tànk kon jàpp na ni ñun la ñu war a def pour mu àgg si moom def na ko maintenant kenn ku si ne su fekkee ni da ngay jiite parti li nga war a def mooy fépp foo war a mën a jaaw rek lépp loo mën a def ba sa parti partout au Sénégal mu benn da nga war a def ñun vraiment politique moom damay am habitude di wax ni xëy na kenn du si wax jamais mais ñun dañuy catégorique par rapport à notre décision parce que c'est une décision mûrement réfléchie dunoo dunoo kon dunoo dunoo waxtaan ak base bi waxtaan ak les responsables décision bi ñu jël pour quitter le pacte Rewmi décision bu acté la irréversible loolu décision bu ñu jël la après nag réflexion ak tout les responsables ak toute la base ñu wax ni par exemple lii nii de li gën mooy nga jóge si part dañuy préférer lépp loo xam ni base bi daf ñu koy digal ñu jox ñu ñu ñu jëfe ko parce que le président Idrissa Seck moo doon wax naan je préfère à une base et non ceux qui ont une nekkoon question boo xam ne lu ñuy xaar la parce defe naa askan wi ñu bari ñoo ngi koy xaar ñun dañu nekk ay responsable lii na xam ni moom lañ nekk nii di ko def mooy suñu deuxième phase parce que ñun lépp loo xam ne da nga koy dox lu ñuy programme lu ñuy waxtaane lu ñuy toog tënk la ñu tënk ko si ñeent phase la première phase c'était d'abord ñu waxtaan ak responsable yi waxtaan ak militants yi par rapport ak parti bi ni muy doxee bi ñu leen bi ñu leen dégloo presque les quatre-vingt-quinze pour cent ñi nga xam ne déglu nañ leen même sos lañ ñu wax parti bi jóge leen fa soo fekkee da ngeen bëgg avenir politique ñu déggal base bi tey moom la acte nii la deuxième phase mooy comme que ñun dañuy démissionné dañ kat duñ ko def lu yomb parce que suñu waxoon ñu bind kii rek yónnee wala def ko Facebook comme ni koy ñu bari defee ñu ne nag deuxième phase bi comme que dañuy démissionné pour que nit ñi yëg ko au niveau national même au niveau local partout même international dañuy woote benn point de presse déclarer publiquement ñëpp xam ni ñii ko jóge nañ si parti Rewmi la troisième phase bi nga xam ne moom la ñu jub mooy avant de prendre une décision bépp bu mu mënta nekk dañuy consulter waat la base parce que politique bu bugg ñu su fekkee ne da nga ànd ak ay nit suba ngoon guddi ak bëccëg ñoo ngi ci yow xëj na yoroo dara mais foo wootee ñu dagg seen i activité dagg seen i dagg seen lépp ñoo taxaw ñooñu ko day baax nga jox leen nopp décision bépp boo xam ni nar nañ ko jël ëllëg mooy dañ ci waxtaan ñun en tant que responsable consulter la base te la base décision bëpp boo xam ni fa la la majorité jëm ñun ñun fa lañ jëm. loolu lu yomba tontu la parce que nit ñi aussi foog ñu fàttali ni. ñun Maguette Boye le maire de la commune de Xawma dañuy dem ak moom en dañuy dem s'allier ak moom en coalition ñu nekk gagnandoo ensemble di liggéeyandoo ensemble seen maire en 2022 cela ne veut pas dire que ni ànd nañ ak moom rek forcément rek suñu démissionné fii dañ fa nga dem cela ne veut pas dire que ni démissionné réew mi forcément dañuy dem à l'opposition ñun laa bépp décision boo xam ne war nañ koy jël moment yii di ñëw ñun responsable yi waxtaan acté ko dinañ consulter la base te incha allah si kàttanu yàlla on prendra la bonne décision. mais politique moom incha allah si kàttanu yàlla duñ ko bàyyi dañuy jàpp ni ñun ñoo ngi doog a door politique. yéen de dafa naa yéen ko yéen a ko gisandoo xam ne bu fekkee ab réew daf par ab parti dafay nekk amoon si maire bi cinq conseils municipaux si maire Xombal tous les cinq conseils municipaux yëpp démissionné kon dafa naa foofu desatu fa dara su fekkee ni responsable des femmes. dafay nekk démissionné kon foofu desitu fa daal su fekkee ne responsable des sages dafa démissionné responsable des jeunes responsable des élèves et étudiants kon parti boobu dafa naa li ma naan toutes les entités du parti tey ñoo ngi ak ñun te ànd nañ ak ñun si démission boobu. xam nga loolu aussi ñu bari dañ ko wax parce que ku constaté xam na ne parti Rewmi nan daan doxee ak léegi wute na maintenant su fekkee ni yow dañ la jiital Idrissa Seck wax dëgg yàlla kenn du natable am xam-xamam ak xarañtam ci politique. mais politique dina àgg foo xam ni yow su fekkee da nga gis sa parti des responsables de haut niveau di bàyyi depuis lors kon dafa naa yow war ngaa xoolaat sa doxalin kon damay jàpp ni doxalin ba moo baaxul su fekkee ni parti ña fa nekkoon démb ak bët bërtileem ànd ak yow de 2006 à 2023 xam nga 17 ans de compagnonnage su ay jeunes nekkul lu yomb nga nekk ko peut-être souffrance lu ne nga daj ko ni si ëpp si parti bi di bàyyi di dem kon yow war ngaa xamaat ni doxalin ba ngay dox nii ba leen wax ni danga ma laaj question bu important à savoir lan moo waral mu jóge fee ñëw fii te muy benn parti bi dama xam ni parti boo ci dee yëngu bam fa ndoom ba soo demee bay jóg te parti bi ñu ngi liggéey parallèlement à savoir le coordonnateur indëri muy deux kii yuy liggéey parallèlement man ci ndëri laa war a ñëw man maa interpellé ndëri interpellation boobu nag li ko waral mooy man je suis indépendante fu ma toog dama koy wax man kenn tënku ma parce que j'aime travailler dans la droiture donc euh, <coughs> Yankoba li may wax foofu li ma bëgg a leeral foofu mooy que ni su nommé un coordonnateur à Khombole muy liggéey ndëri di liggéey ñu xool ni coordonnateur boobu mu nommé tey bu ñu xoolee résultat yi mu joxe cas bi moo ëpp doole war nañoo cëral cas bi te ñun parti boobu fi ñu fi nga xam ni man fi la basé woon di liggéey amul structure parce que amul présidente amul coordonnatrice mm-hmm. des femmes mm-hmm. bien que man lañ ko nommé mais gisuma ci sama bopp mm-hmm. parce que coordonnatrice des femmes su demee bay liggéey war na nañoo xam cëram ni lii lu jóg jëm ci jigéen ñi ci loxoom ci la war a teg te dama ànd ak samay la jigéen yoo xamante ni ku ci nekk su ma jógee ni la jógal gis nañ ne xañ na ndey si laa ngi sol mbubb waaye nag man damay liggéey mu parti bi lekkuma ko mais nag li ñu mayoon ñun courage mooy avant ñuy dem au pouvoir dafa yomboon ci ñun pour ñu liggéey mais instant bi yombatul ndax li tax yombatul amuñu moyen yoo xamante ni moom la ñu mën a liggéeye te mënatuñoo teg ci loxo nit ñi dara loo xamante ni dinañu ko gëm parce que déjà soo xasee nekk au pouvoir rek liñ la doon muñal muñalatuñu la donc le travail commence à devenir difficile loolu nag moom laa xool ak bëgg dëgg xam ni nag fii itam wax dëgg yàlla fii la dëgg nekk ndax su fekkente ni dangaa noome un coordonnateur boo xamante ni moom li muy mëne structuré wu ko déjà man damay xool fi nga xam ni fa la dëgg nekk ma ñëw fa loolu moom moo ma indi fii